damay ñëw ci Ndéla parce que question bi Ndoye euh, Ndéla laa koy adressé directement. Mm-hmm. ne la tey comme ni ma la waxee tantôt genre ñu dugg ci famille polygame. et que xëy na mu am ñaar ñett ba ñeenti jabar te à chaque fois xëy na ah <laughs> ci jabar yoo xam ne boo fa demee am na lu la fa war am na loo fa war a def te Ndéla dama la dégg benn bës nga wax wax bu am solo. dafa mel ni yooyu dala la yitteel daal maanaam. waaw mooy que sa góor daal saay bu ñëwee. chaque jour am na nu mu war a ñëwee am na nu mu war a toogee am na nu mu war a jëfee. Mhm. <laughs> Wilky. ah mais oui. <laughs> Ah, léegi nag imaginel tey mu nekk famille euh, polygame euh, soxna yi daal di dem ci sëriñ yi kii di def lii kii di def le ba ba xëy na waa ji bu demee ci ñaareel ba du fa mën dara. ndooy ñemewu ma yegg ci wax ji. Ah, mooy maanaam. day ngeen boo daal. <laughs> ah c'est bien sûr takk xala. nga xamante ne bu demee ci ñaareel bi du ci mën dara wala bu tiimee daal maanaam yëf daal. bu ñëwee si yow daal dara du dox. voilà voilà courant yëpp loolu say yow nan nga ko gisee. man damay dégg xala rek. Hmm. waaw damay dégg xala. Uh-huh. ku góor ki takk deuxième wala troisième femme. waaw. ñu liggéey ko nañu wax. wala sax dama koy damay rectifier question bi. dama la naan tey mu mel nii ndee la nekk ak euh, xëy na jëkkëram fekk am na benn yaa yaaw bu nekk ci bët bi bu ne ci wet bi mu ngi lor ñi jëkkër ji ñëw def loo xamante ne bu ñëwee ci ndee rek ndax waa ji daal moom danaa nem rek sedd. mën dara ah, waaw waxin la. <laughs> Ah, loolu. noo ko nar dundee. Hmm. ñu takk ko ba bu ñëwee ci yow du mën dara. danaan ko dégage faju jël laa wax. ndel loolu bu doon yow noo koy gérer tey. su doon man noonu laa koy gérer. Hmm. ah nga dugg si dëkk bi rek dindi xala bi. dem faju faju lu loxo def loxo mën na ko dindi. lu loxo def defe naa loxo mën na koy dindi. dama damay commencé xam naa ne bala ngay ñëw ci àll Serigne Bara dama lay wax benn affaire bu ndaw bépp góor bu dox ba dugg sa biir kër ubbi sa frigo fekk fa paaka xamal ne sa dañ laa dañ laa takk xala. nga lay takk xala nga dugg sa sa biir kër ubbi sa frigo fekk fa paaka paaka mu ñu dugal ko si biir kii nga xool paaka bi doo xoolee paaka bi di nga xam ne lii c'est pas naturel eh, paaka bi paaka ak leneen parce que mag ñu njëkk ñi bañ ko daan def dañ ko daan def ci taatu ndaa yi léegi ni kër yi dafa am frigo mm-hmm. loolu mooy wone ni soo demee fa ngay dem maanaam da ngay yor ñaari jabar soo ayee fi ñaari fan da ngay mën Mm-hmm. nga dem aaye ci ñaareel bi doo mën mm-hmm. maanaam suy génn kër gi rek ndaw si jël paaka bi dugal ci frigo bi mm-hmm. li nga yor di sedd guy ba kelu ngay ñëwaat ñu lii ma lay nii du ay fo xam naa ni baaraka bi dina ci ñëw borom xam yaa ngi may seetaan mag ñi dañ ko daan def ci taatu ndaa yi ñu lay takk xala mais su soobu da ngay dem am na ci ñoo xam ne soo demee dañ ko dindi am na yoo xam ne ko sàngee xala mun laa jàpp wala la jàppee day dañ yooyu mi am na mais jigéen ñi ñooy takk xale góor ñooy takk xala góor ñi te so li ma naan femme yàq femme. Mhm. femme yàq femme femme détruit femme jigéen mooy yàq moroomu jigéen nag. pourquoi mhm. Mhm. parce que dangay am sa jëkkër yow bànneexu sa ñaari femme ba mu neex nga ne sama moroomu jigéen mais. du bànneexu pour lan. te gis nga leen laala la ba xam jigéen ñu bari ñu ngi dem ci sëriñ si di liggéey seen doomu wujj yi. Mhm. te lu fi waay rend sa loxo lay naaj ba sa ngi ñëw soo doom am nga jur doom am nu mel wala nga jur doom muy saxaar rek te du tàkk mhm. fekk nga koy jiin jàmbur fekk yow xalaatal sa xalaat lan nga musa a def mhm. doomi jàmbur ci lu bon te lépp ji ci biir kër yi nga gis ay ñaar nit ñoo xam seen buntu néeg yi takkaloo seen doomi ñooy fowandoo ci diggu kër yi kenn ci jeeg yooyu dem dugg jël autour à péage bi dem ba ci àll bi liggéey benn moroomu jéega sa ñaari doom ñi ngi jàng voilà nga dem di liggéey xale bee dàq jàng dem liggéey beneen xale pour mu bañ am mm-hmm. xam nga yooyu dafa ñaaw mi ngi am ci biir kër yi te kër goog dëkk boo xam dañ naan julli julli vraiment sëriñ si def noonu ñoo jekk dëkk mais pour lan ndooy doguma bëgg jël yëpp centre ko ci jigéen ñi góor yi itam da ngeen mais góor ñi en général li ñuy def sax nag non non góor ñi dañuy li ñuy def mooy góor gu mm-hmm. faible góor gu faible mm-hmm. mooy liggéey jigéen pour ñu mu nob la la grandeur de l'homme se trouve ici nit da am bopp am xel xam nga moo ko ma nag ni ko ndee la wax di doxaan dem di maye xaalis loolu dof loolu dof a koy def <laughs> soo ñëwee nag soo takkee sa jabar ba indi sa biir kër soo jakkee sa jabar ba indi ko sa biir kër <laughs> yow naka la ndooy d'accord ma am na xale góor yoo xam ne ñu ngi fi di liggéey di liggéey jigéen ñi pour ñu takk leen wala li ñu li ñu yor waaw dañu li d'accord waaw d'accord c'est que jamono ji jamono ji jamono ji góor góor góor fi muy liggéey jigéen mooy góor fa bi ñu liggéey jigéen mooy dangay gis jigéen boo xam ni jëkkëram gaañu na bàyyi fi alal mm, surtout jëkkër tubaab waaw jëkkëru tubaab wala jëkkër tubaab bu bàyyi fi alal daal nga dem joob ko mu nob la te xam nga lii liggéey jigéen mu mm. topp la moo gën a yomb naan ndox ah mm. nga ci dara mu ne baala kebe mais soo lañ ko bàyyee dina ci dina ci leer liggéey jigéen mu topp la moo gën romb naan ndox ma ne la jigéen ñi tamit dañuy liggéey am na ci benn benn pël bu nekkoon fii sama benn mbokkum pël bu nekkoon fii rond point 6 ñetti fas la lay jox. Mm-hmm. fas ñetti façon couleur nit yi ñoo am nit ku xonq nit ku weex ak nit ku ñuul moo am. Mm-hmm. mu takkal la wëñ bu xonq am na wëñ bu weex am na. Mm-hmm. wëñ bu ñuul am na. mu defal la ko jatal la ni la Modou Gueye laa bëgg mu topp ma. maanaam da koy jat takk ko def ko ñetti fas. takk ko ci jigéen ki takk ko ci ndiggam. bi nga looy wax ba jàpp ndigu ndigu ndaw si teg fa sa loxo. Mm. ndaw si bi ma ko defee émission fële thème de la semaine RFM quelque temps après ma dem seeti ko lenn ni ma daw na te ndaw saa ngi ci dëkk bi mu ngi biir euh, fii ci biir Dakar waaye waa am xam-xam te loolu rek lay liggéey Dakar te famille ña ngi fay dem di képp boose bu baax a baax xam nga man keen du ma liggéey parce que man du ma joxe man damaa nay <laughs> man lu ma mari baa nag sa yaa soog mer ndooy laa koy jox ak ak sëñ Bass Abdou Xaad rek dëggeen mu ndaw ñoo koy lekk waaye man su ma lay doxaan doo lekk léegi nag dañuy xool ñi nga xam ne am nañ alal am nañ bu baax a baax a baax di dawal ci oto yu baax yi yor ci mm. kër yu baax ñu leen di coow ci dëkk bi dañuy dem takk la yeew la yow je sa jabar ngay toog di xool sa jëkkër du yendal du fanaanal góor ñu bari ñu ngi dem di lu ñu am versé ko jigéen ñi mm-hmm. bàyyi seen jabar nga yaakaar ñoo ko tey fekk dañ leen jàpp jàpp mystiquement mm-hmm. Mm-hmm. femmes yi bari ñi ngi seen jëkkër gaañu ñu abandonné seen doom jël topp benn góor ñu naan de moom xale bu góor bi la topp fekk femme bi li muy def teyu ko am na ay góor ñoo xam ne xëy suba ba ngoon jot veuve yu am riche yi ñu ak ñi seeg jëkkër tubaab di jox ndoo demal ak ñi am jëkkër tubaab tam waaw xale yu góor yi loolu la ñuy bëgg dañuy bëgg biceps moom am na fi moom loolu xam nañ ko <laughs> mhm. mais nag xale jigéen yi ñoo leen ko yombalal <laughs> xam nga yi nekk sali yi góor yi nekk sali waaw gars yi di leen tubaab yi jigéen mm. euh, yi nekk mm. ñi am fii nga defe ni tubaab yi dañ leen takk ci neen waaw moom laa la dama ne Ndoye Bane weddiwuma li wax de dama ne loolu am Ah, mais dama lay expliquer ne la dañuy jàpp tubaab yi. ndoy baan kër gi nga jënd fii nga jox ko ndaw si. mu dugal fa yaayam ak papaam moom mu dellu fara loolu am na loolu am na ba tey Serigne Sang koy def mais dama la ne man dama ne comme loolu liggéey comme liggéey nit mu topp la am na mais góor ñi tam am na. Ah. ndoy baan dañuy seetlu ba pare. léeg-léeg nit jékki-jékki sa takk moom mbaa sa sëy ak moom gaaw torop te yow déggoo wax ji. Mhm. boobu seetlu na la moom ba pare. Mhm. est-ce que wax. seet naa la ba pare day ñëw wax ak yow waxu takk bi rek ngeen sottal ko loolu am na am na fi ay góor yoo xam tam dañuy topp xale yi kànnaar yu bari sëriñ sang joxe kànnaar yi ñuy ëw ndooy li nga xam bi laay xam naa lu ko ra d'accord <laughs> damay toog ak ñoom ñu may wax expliquer ay sëriñ yoo xam samay xarit lañ ñu di ma expliquer lii ak lii kànnaar bi loolu def boo ko tëjee tudd ci turu yaa awa fu yaa awoo mën a nekk ci àddina di nga ñëw fekk si ko fi mu ne moo tax nag xale jigéen yi ñu war a moytu lu bare bare a xale yu góor yi tamit. ñu bàyyi maa yomba dara léegi léegi léegi dañuy ñëw ci sëriñ baara sëñ bi euh, tey euh, gis nañ ni.